Ramatoulaye Diallo ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay euh, Elisabeth. may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi dalal tey euh, présidente collectif des mareyeurs exportateurs du Sénégal euh, jamono ji nga xam ne ñoo ngi wax ne dafa am benn feebar bu kenn xamul fu mu jóge gi laal nappkat yi jamono ji nga foog ne lan moo waral li ni mel. xam nga Elisabeth ñun feebar bi ñun ñëpp la yéem ci dëkk bi. vraiment kenn xamul parce que fu mu nekk nii ku ci nekk yaa ngi joxe sa xalaatu bopp. Mm-hmm. mais tant que daal euh, fajkat yeeg waa kër docteur yi waxuñu ci dara ñun ñu cee prononcé parce que aussi loo maîtriser wul mënoo cee wax lu bari. waaw mhm. mais ñu ngi leen di ñaanal quand ñu gis remède bi ñu tane bu baax. Mhm. coow li bëri na comme ni nga ko waxee kenn xamagul fu mu jóge waaye ñi ñaa ngi rumandaat ne ay bateau ñoo sotti ay déchets ci seen si suñuy waax donc si suñu ndox mi ndax li ni mel euh, yàgg nañ ko fee gis euh, maanaam déchets yi ñu koy indi suñuy côte di ko fi tuur. Ah, xam nga moom géej comme niñ koy waxee moom géej mbaambulaan dafa yaax nit mën na fa c'est vrai que marine marchande bi macha allah léegi am nañu ay patrouilleur am nañu bari pour xool mm-hmm. mais du lépp lépp géej gi yëpp mënuñu koo sillonné mm-hmm. parce que soo xoolee Sénégal on a sept cent dix huit kilomètres de côte léegi loolu mën na nekk mais ñoom tant que gëstuñu ko donte jël nañu ay euh, échantillon na ñu ngi koy analyser nañu xaar ba loolu génn ñu wax ndax géej gi dañ koo posone ak ban façon postong la bu boobaa loolu ku ko am peut-être di nga am benn départ nooy xay euh, saito affaire bi. Mm-hmm, d'accord ndax mm-hmm. loolu am na lu mu gàllankoor yéen seen liggéey yéen ñii di mareyeur yi ci fan yi ñu weer. Ah, loolu kay ñëpp la gàllankoor. Euh, dooree ko nag ci mool yi. boole ci secteur bi daanaka parce que yëf bi chaîne la. Mm. su amee fu taxaw rek. affaire bi lépp ay taxaw en tout cas ñu ngi ñaan saafara ñu teel ci am saafara nit yi mën a dellu seen sago mën a liggéeyaat. Ramatoulaye ñu bëggoon a xam nan ngeen di liggéeyee ban procédure yéen mareyeurs yi ngeen di liggéey ak euh, nappkat. waa comme man ni ma ko waxee sànq ñun mareyeurs yi dañoo am euh, ay catégories mhm. ñun dañoo am ay mareyeurs yu nekk plage yu nekk ak nappkat yi di ñu indil jën yi ci usine ñun ñu congelé mhm. daal di jël exporté. boobu benn coté la mhm. am na beneen euh, pàcc ci suñu activité boo xamante ni itam dañuy jënd ay jën yoo xamante ni dañ ko liggéey ca biir géej ba mu pare mhm. daal di koy yebbi fekk congelé nañu yeb ko ci ay conteneur yóbbu leneen tam am na ñun léeg-léeg dañuy jëndi jën feneen mhm. Oman ay Sierra ak yeneen dëkk ba ci ay Argentine yeb ko ci ay conteneur indi ko fii approvisionner marché local te loolu aussi dama ci bëggoon wax tuuti. Sénégal bi am sept cent dix kilomètres de côte su sàggane dinañ toll benn moment dañuy jëndi jën pour lu réew mi dundee lu doomu Sénégal yi dundee te loolu lu ñaaw la nar a doon mm-hmm. waaw parce que ñun dañoo ñëw fekk géej gi lépp am fi suñu ay maam daal di koy aar ba ñu jot ci ñun ñun lan mooy suñu devoir mooy ñu aar ko aussi bàyyil ko suñu ay doom ak suñu ay sëtaat parce que sinon kat gone yi am na jën yoo xamante ni ca documentaire yi lañ koy seetaane de dañ ko mës a gis ci seen palaat wala ci bool yi. tey jii yéen jafe-jafe ngeen gën a jànkonteel ci seen wàllum liggéey. wàllum liggéey bi koo ci laaj ci secteur bi. Mhm. waxum kii la lay wax euh, ressource. ressource si moom mooy daanaka jën yi dafa wàññeeku torop torop torop torop. Mhm. loolu tax na nag njëg li yokku marché yi seere loolu daal moom la ñuy gën a kii. gën a naqarlu daal ci liggéey bi mhm. jën yi nu mu wàññeekoo waaw mhm. te ñun aussi loolu moom pexe bi mooy moo li nga xamante ne ñoo nekk ci xeex bi mhm. ñooy dem ca waar di béy ca géej ga ñooñu dañ leen a war a def ci ay conditions arrêt biologique yi maanaam li ñuy taxawal géej gi ñu bañ cee napp ñu gën ko allonger géej gi noppaleku nooyi parce que kat pour waxaat encore rek parce que nit ki fépp lépp lay wax da koy teg ci exemple wala di ut foo koy comparer. Mhm. Chine 17 novembre bii nii nii arrêté na mille gaal gaalu looco yuy napp ca Yangtze foofu mhm. loo xamante ni 14000 euh, pêcheurs euh, euh, ñoo taxaw mhm. muy mille ay quelques pirogues yoo xamante ni dañ leen a arrêté ba pare tegal leen ay subvention pour gunge leen nu ñu dundee le temps que ñoom seen géej googu. daal di noppaleku euh, jën yi daal di meññiwaat mm-hmm. donc loolu il faut ñu mën ko defal fii suñu mool yi ñu mën a toog dal géej bi kiiwaat ba pare ñu jël ay récif li ñu naan récif mm-hmm, dugalaat ko ci biir géej gi mm-hmm. créé waat ay habitat marin géej yi am fu ñuy dem jën yi plutôt nekk fa ba reproduire ba am euh, ñu daal di reconstituer waat Euh, biomasse bi. Mhm. Euh, gis nañ ne euh, ñoo ngi doon laam-laame ni am na ay bateau chinois yu nekk ci waax yi. ndax bateau mhm. yooyu dafa am lu mu yàq ci pêche artisanale bi tey. Ah, mais loolu loolu même ñun ñi nekk ci secteur bi suñ ko waxulee. sénégalais yi lekk jën tamit seen kër yi ñoom loolu war nañ ko remarquer que jën yi dafa wàññeeku bu baax parce que gaalu chinois yi napp mhm. ñoom ak suñu pêcheurs yi dañuy daje. te ñoom capacité bu ñu am pour napp mhm. suñu pêcheurs yi amuñu yooyu moyen amuñu ko donc forcément day impacter ñoom si seen i liggéey te mhm. ñoom aide aide ñuy am si seen réew ba taal seen i ay euh, gaal mhm. jóge Chine dawal ko ba fii ñëw liggéey si c'est parce que seen état da cee jàpp jox leen ay jumtukaay ak alal joo xam ne war nañ cee mën a liggéey waaw. ndax pêche artisanale bi sooxee na ba euh, mu am lu mu gàllankoor tamit seen liggéey yéen ñi. pêche artisanale bi daanaka sooxe na bu baax parce que tey soo gisee usine yu jën yi ñu tabaxoon fii yëpp ci Sénégal mhm. soo ci tegee fukk xayma fukk. soo xoolee daanaka benn wala ñett ciy liggéey juróom-ñaar yëpp a ngi tëj mhm. parce que amul lu koy tourner parce que kat usine doo ñëw di fi indi ay pepp naan yaa ngi taal ay tunnel tunnelu cinq tonnes wala dix tonnes pour congeler ay ay ay ay jën yu néew. mu am tamit accord yu euh, de pêche ak euh, Union européenne comme niñ ko waxee sànq. yi nga xam ne uh-huh. ñu ngi koy ruumandaat tey jii ban jàngat nga def ci yooyu accord. accord de pêche ak Union européenne yi comme niñ ko waxee ñun suñu mool yi ñun de ci li ñu xam gaal yi ñu yor gaal yooyu mënuñoo egg fi ton bi di évoluer mm-hmm. amuñu matériel bi amuñu équipage bi pour napp boobu jën ñun kañ bu son donte géej gaa ngi nii te dañ ko bëgg sax saxe ñun suñu xalaat de mooy état bi équipé suñu mool yi jox leen la war ñu dem ñoom it di ci di ci napp di ci gis seen bopp doomi Sénégal di si gis seen bopp ñëpp di si gis seen bopp moo gën ñu koy bàyyi lay étranger mais encore une fois ñoom fa ñu évoluer communauté européenne loolu moom mënul impacter si pêche artisanale mm. suñu pêche artisanale gi ñi leen di sonal ñoom xam nañu ko ñoom la ñuy dajeel parce que ñëw te ton boobu it ñoom suñ ko jën nappee fii ñun dëkk bi fii kenn du lekk ton loolu moom ñun ñëpp xam nañ ko. sànq Ramatoulaye wax nga ko ci jafe-jafe yi. muy seen mm-hmm. carte professionnelle. Euh, mm-hmm. lan moo ci lëndam lu ci ñuul. ba mënu leen ko am <laughs> suñu carte professionnelle carte yoo xamante ni la décret moo ko tënk depuis 1973 ci temps président Senghor. Mm. ñu ñëw 2009 gouvernement président Ablaye Wade amandé carte kii yooyu décret boobu te ba tey changé wul disposition wu carte bi. 2016 mm. ñu indi fi benn tutelle bu bees au niveau du ministère moom ak directeur directeur des industries et des pêches moo jël moom circulaire. Mm-hmm. daal di invalider un décret présidentiel ñun ñu yaakaar ne ñun décret moo sut ci lépp lu ñuy eh, tënk fii ci Sénégal ndax lool président moo koy signé naka la ko not circulaire mën a dindee def loolu ba pare ñoo ne léegi nañu toog autour d'une table daal di étudier waat tënkaat beneen décret bu bees ñu xool naka la ñuy joxaatee carte yi ci yeneen anam. Mhm. ñun ñu xam leen ne ñoom ni ñu doxalee daa dëpp yoon parce que décret décret ko mën a teggi. est-ce que du dañoo bëgg a seetal euh, secteur bi. non mais ñoom seetal secteur bi ci nan je ne pense pas parce que ñun. Euh, lu ñuy def ci secteur bi amul dara lu ñuy tilimal ci secteur bi au contraire ñun dañuy exporter léeg-léeg ñu importer indi fii ci marché central bi nga xamante ni du toujours lay am jën mhm. ba pare export bi ñuy def day participer ci PIB bi te ñun suñuy liggéey usines yooyu am na ay journalier lu mu dee dee dee ah dinañ jël par jour cinquante ba cent femmes ñu liggéey ak ay jeunes mhm. suñu liggéey foofu transitaires yi dinañ tourner mais fu mu nekk nii chinois yi ñu abal géej gii jox leen ko ñoom rek kay liggéey carton sax duñ ko jëndee fii dañ koy importer wala ñu jël ko centraliser ko jox ko seen benn mbokk mu dem Rochette commander fa des millions et des millions de cartons yoo xamante ni prix bu muy am ah jéggi na dayoo parce que yow mi di jënd pour ñaari conteneur ak kuy jënd des million de cartons doo leen bokk njëkk. gannaaw loolu yëpp jàpp nga ne Sénégal tey am na benn politique de gestion euh, suñuy ressources halieutiques. en tout cas ñun de affaire bi daf ñoo jaaxal lool parce que àddina bi soo xoolaatee déjà ñu bari dañoo privilégier seen nationaux. Mm parce que ñun aussi suñu xeex mooy un secteur privé national fort. Mm-hmm. maanaam doomu réew bi ñu doole la ñu mën a liggéey parce que lu ñu liggéey aussi Euh, ñi fi dëkk ñooy récupérer dividende yi ñu na déetawaay covid bi encore ñëw nit yi gën a lemuwaat banquwaat ci la ñu yoroon mm-hmm. gis nañ fi Trump mu naan America first ñu naan déetawaay Joe Biden mii ñu fal barki démb xam lu mu wax mm-hmm. buy American mooy sooy jënd nga jënd lu ñu produire Amérique mm-hmm. léegi nag lu tax ñun fii suñu réew yi mënuñoo dooleel ah les nationaux dooleel ñi fi nekk ñoo xamante ni dañoo ñëw gëm lan mooy entrepreneuriat parce que réew moom comme je dis rek du ay fonctionnaire ñëpp mënuñoo nekk fonctionnaire il faut am ñoom tamit dañuy sañ ne lii dama koy bàyyi parce que ñun ñii ñëpp dañu am ay diplôme am métier ah ñun si suñu biir am na sax ñoo xamante ne ingénieur nucléaire lañu Oxford la ñu jàngee léegi nag soo gisee ñu ñëw di def entrepreneuriat pour créer ay affaires c'est parce que ñun dañoo gëm ne loolu mooy doxal réew te ñun suñu catégorie encore une fois des mareyeurs mooy ñoo xamante ni bii jën ba wax pêche ba léegi mooy catégorie boo mosul te bénéficier subvention de l'État du camion frigo buy ñëw ñu jox ñu ko du leneen ñun ñooy jël suñu ay propre moyen ñooy suñu ay alal la ñuy jël garantie ko ñu jox ñu ay prêt suñu ay partenaire ñëw ñu daal di yónnee ñu suñ leen di liggéeyal ñu xool ñun tamit ñuñ ciy yokkee suñu doole mm. ñu daal di liggéey yóbbu donc man xaw ma en quoi la ñu mën a yàqee secteur bi wala def leneen parce que ñun heure bu ñu yëngoo secteur bi yëpp yëngu ba ci journalier transitaire ak euh, ay ship chandler te léegi port sax amatul ship chandler ndax chinois yi ñoo koy defaral seen bopp. Ramatoulaye Diallo ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay remercier Elisabeth. Mm-hmm. waa di leen wax euh, ba beneen yoon ba pare bëggoon aussi benn dernier mot rek. Mm-hmm. di lancer benn appel solennel suñu njiitu réew mi muy président Macky Sall. Mhm. pour ne ko daal pêche bi pour mu nekk ni moom ci boppam war na ci sëgg bu baax si secteur pêche bi. Mhm. mu voyager si ba ba lap si xam lépp li ci ne. Mhm. xam souffrance li nit ci di daj. ba pare pêcheurs yi tamit ñi nga xamante ni sen doom yi na nañu géej. wala seeni ay mag ñu ngi leen di jaale mm-hmm. di ñaax aussi autorité ñu yebal autorité bu mag ñu dem jaale leen parce que lu gënoon ndaw lii xewoon na Angleterre en soixante six mm-hmm. reine Élisabeth II ci boppam toog na lu yàgg mais dafa mujj dem parce que événement yeeku laajoon foofu cent quarante quatre ndaw ñoo dee woon miin moo tas daal di ensevelir école Aberfan en soixante six te ñii dee ci géej gi lool quatre cent et quelques ñoo xamante ne ñooy suñu kattan ñooy suñu ay doole vraiment war nañu yëg ne que Sénégal affaire bi naqari na leen parce que ça c'est une tragédie nationale. dëgg la loolu daal laa bëggoon finir di leen jaalewaat ñoom ñëpp di jaale Sénégal. di la jaajëfal nga jiite collectif des mareyeurs exportateurs du Sénégal Ramatoulaye Diallo merci beaucoup. merci Elisabeth merci waa Rewmi.